duñu àndandoo mukk ci kenn nit mooy doylu ak iñaan doo fekk mukk nit ku doylu muy iñaane keneen la mu am ndax moom lim am def koy doy waaye doo fekk mu koy iñaane keneen nag ñu mën a wax naan jikko doyloo ngi ci moom ndax duñu ànd ñoom ñaar waaye ñaari jikkoo ngi nii nag duñu tàqalikoo mukk te muy xiir ak iñaan ñoom ñaar mënuñoo tàqalikoo ndax tàmbali xir ki ñaan mën na caa bañ feeñ waaye bu yàggee rek boroom iñaam ndax boo xëree loo am danga koy xeeb yootu la ca topp loo am di ko xeeb di yootu la ca topp te boo dee def loolu ba gis koo xam ne moom am na li ngay yootu te jotagoo ci yow dangay mujj di xalaat e waaye ndaw ki am na ko taman uma ko di ko ñee bu ñee bi yàggee mu àgg ci nga iñaane ko ko loolu nag mën naa yóbbu nit ba ci xalaat ne aka neexoon moom mu ñàkk ko tama am ko waaye du fa taxaw day continuer nit ke ba àgg ak moom ci xaarama jóg def pexe yu ma ko ko yàqale te loolu nag mooy catul iñaan mooy wa min sharri xaasidin isa xasad loolu ayu ayu ab aji iñaan su demee nag ba jóg di jëf nag jëm ca kiñaan ga foofa mooy daya ba yamukaay ba te mooy jikko ba yées moom la yonent bi sallallahu alayhi ne woon ne day lekk ay yiw ni sawara di lekke mat kon loolu ñu xikma bindi loon tey ñuy bàyyi xel rek bi julli ak sëlmal ci sangub sang yi sunu sang ba sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ñooñam ak saxaabaam ñi ngi sant ñëpp di gërëm di jégglu wasalaamu aleykum wa